Salam alaikum. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour, Madame, Monsieur les ministres et les collaborateurs des ministres, Monsieur le ministre, li ñu fi indi tey lu am solo la dans la vie d'une nation mooy trajectoire yan décision lañ ci jël yoo xamante ni daf koy influer que ñu bëgg ko que ñu bañ ko mais bala may commencer damay rendre hommage jàmbaar ji nga xamante ni kenn du ko jàngal baale ndax 64 ans ngi nii ci baale rek la dëkk jàmbaar jooju nag mooy askanu Sénégal li ñu ko digoon yépp lu ci ëpp gisu ko muy baale kon ko kenn du ko jàngal baale kenn du jàngal baale kooku nga xamante ni bañ ko digee ne ko saa boo feebaree di nga faju amul ko ko faj kenn du ko digal baale ndax bañ ko digee service public du logement tey jii benn ndaw mënul am kër mënul teg brique daal di jël ndaw ñooñu dëkk boobu nga xamante ni bañ joxuñu ko baal ñi nga xamante ni sécurité mënu ko am donc dafay baale depuis quatre ans kon du ñu ñëw tey pour jàngal askanu Sénégal nan la ñuy baale waaye li nga xamante ni moom moo doy waar li nga xam moom moo doy waar mooy les morts nous écoutent te amnistie yi ñu deful yëpp yi ñu jot a def yëpp kenn mësul def évaluation pour xam ban njëriñ la am te amnistie allez dire au président de la République qu'on ne décrète pas une réconciliation nationale mais on la sécrète ay actes yooyu posé la dans le temps ci benn processus boo xamante ni dafay am benn consensus bu wóor boo xamante ni ci la ñuy dox mais kenn du ko décréter donc le caractère urgent pour dem dans une réconciliation nationale amul benn sens amul njëriñ ñu wax ñu nag ci Sénégal ay mbir yu rëy collègues yi wax nañu ko muy ay réseau dormant de terroristes ñu jël université Cheikh jot Diop taal ko ci benn bëccëg daani ko def ko en cendre ñu daal di jël ay nit yoo xamante ni di leen rey comme ay xar di leen sànni ci mbedd mi sànq ba tey maa ngi dégg ku nekk naan dafa am ñu jur doom yu dee képp ku dee dafa mel ni réew mi yëpp la jur parce que lu nekk mën nga koo doon ci réew mi kon doomu kenn amul doomu réew mi moom moo faatu kon su boobaa waxuñu ne duñu baale waaye dañoo bëgg a fàtt fépp dañoo bëgg li woon woon ni dañoo bëgg xam li xew ngir ñu baale justice aux ordres jàpp naa ne président Macky Sall exemple bu am solo la kenn dootul jël justice di ko jëfandikoo parce que juste jëfandikoo justice moo ñu indi li yépp tey loolu moo ñu dal ci CREI am ñu dem gëmloo ko ne ko tu ne peux pas avoir en face de toi des opposants milliardaires mu topp xolam jël ay nit toroxal leen ci bëccëgu ndara kàmm loolu moo ko dal ci xalifa Sall loolu moo ko dal ci ñeneen ñi nga xamante ni yépp tey dañu rëpp ci kanamu justice kon encore une fois encore une fois encore une fois na bàyyi ba ki nga xamante ni moom la sénégalais di tànn mu ñëw ouvrir de larges concertations jox ko temps bi mu laaj boole ci ñëpp ba nga xamante ni Sénégal dinañ mën a pacifier définitivement l' espace public l' espace politique kon l'usage politicien qui est fait de l' amnistie tey jii ñun rek nekkuñu ci réew mi ñiy def politique rek nekkuñu ci réew mi am na ñeneen ñu fi nekk ñoo xamante ni ci coono lañu dëkk mais am na ñeneen ñu fi nekk ñoo xamante ni souvent yàlla suñu borom naturel ba ñu juum am am problème avec la justice waa ñooñu ñooñu kan moo leen di defal amnistie donc nous sommes pas benn population rek à partir biir réew mi donc madame le ministre man je pense que ne le retrait de ce bañ ko voté loolu lu am solo lay doon ci histoire du Sénégal gis nañ la nga défendre de très grande causes gis nañ la nga défendre Zégué Bamba waaye tey nag Njaay la ñu sant Jóob lañu sant Fall la ñu sant Mendy la ñu sant Goudiaby la ñu sant Sall la ñu sant nekk ci biir réew mi maa ngi leen ñaan ñoo ñooñu aussi nga défendre leen beneen bi mooy ñu xam ne beneen bi mooy ñu xam ne am na ku ko wax léegi nañu def politique te xam ne politique yemul fii dafay egg fa ñu jëm wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan lépp loo képp koo xamante ni xam nga ne bu ëllëg di nga dajeeg sa borom. mu laaj la nga tontu la les actes yi nga xamante ni da nga koy posé da koy kii leneen li mooy li mu wax léegi ci pacification bi ñi toog fii yëpp samay moromu yaay leen dégg naa ngeen may saaga du leen saaga ndax dama leen rus. politique du saga. La politique, elle a été inventée pour lutter contre la violence. Donc je vous appelle à plus de mesures et de retenue. Merci. La parole est à suivi de Assundiaï.